donno amul lu dul tuba tuba gi département Mbacké bi amuñu lu mom munu mënuñoo dem munu mënuñoo wuti lanen ca du yag yag yag ban génn ko bis ba nga xamne ñaanu ñuko yalla gun ndax dañ fay wara dess des di continue di liggey lo rek la ci bu boba ci tuba lay ni dess kon ku mel nonu wala ñun ñi nga xamne amuñu dekk bi. bis bu set war na noo gën a waat fas yéene liggéeyal dëkk bi ci nakamu ak nan yàlla dafa baaxe ban dugg ci politique ci politique doon loo xam ne araamut ndax defar sa réew la danga ci mën a sukkandiku pour jàppale saw askan loolu mooy li ñu dugal ci politique biñ ci duggee ba noppi nag tey jii ñu ànd ak ki nga xam ne mooy président de la république mu yor réew mi yaakaar na ne le deux la war a waataat daal di tàmbali waat beneen mandat ñun nag Touba gi ma wax ne dama koy xaaj ci ay responsabilité bu dee wàlluk sëriñ bi sëriñ bi moom ñépp xam nañ ak bëggam démb waxoon na ko avant muy nekk xalif général des mourides waxaat ko ci màggalu tubaa waxat ko barki dembu kon lolu moy lan ki fi nek di njitum réew mi dana ko bolé nal ak Serigne Touba man de lolu doyna ma siri. waye ci bir beugam gogou ki nga xam tay tamit jawriñam de ce Serigne Sidi abdoulahad momit day dugaat ci bir beuguk Serigne bi woowu waye ki yor ci bir beug gogou ñi ngi santit bu baax. sëriñ dan moom it ak féeteem ci bëggu sëriñ bi ba tey jii tamit mu yonnee fi ndaw Moussa mii ñëw teewal na ko fi ci ndaw loolee la tamit day feeñal ak bëggam kon nan bàyyi xel ne ñiy wax ne murit yi wala ñuy indi lu mel ne wàllu tarixa ma ne nan bàyyi xel ne mboolem dëkk religieux dëkk yu mag yi nga xam ne ay murit ñoko sanc mu doon ay mbokk di ay ay ay jeuwriñ di ak ay cheikh dekk yeb president Macky Sall da ko gañe ci ay murit lan Touba commune lan mëna wax ak Mbàkke mom la gañewut waye damay wax ne bu demee ba Kaolack wala ñu dem Tiwawan wala ñu dem Thiès wala ñu dem Dakar ay murit gafa ci kan lan andal président Macky Sall kon buñ wax problème mourid nan wax problème yi Touba commune ak maire ak ak Mbacké commune fofu nak ma jox la fi ay tektal bo démé Tiwaawan fa fekk ay ministre fekk fa ay directeur fekk fa ay PCA fekk fa ay député tay mën naa ko lim ñu bari lol nga duggaat ci biir région Thiès boobu waxuma loolu département Tivaouane la rek nga dugaat Thiès fekk fa ay ministre lim nañ ko léegi nii fekk fa ay député fekk fa ay directeur général yu yar ay kër yu mag ak bitse yu mag nga dem Fatick gii fekk fa loo xam ne nii ci ay ministre ak i directeur kenn xamu nu mu toll nga dem Matam même chose kon ñun Touba ñun département Mbacké nan bàyyi xel kon ne lii ñu góor góorgóorlu ba am 67 mil yu tegal ah ci amuñu lenn ci loolu lu dul benn décret loolu lu mat a bàyyi xel la ca bàyyi gi xel mooy président def na fi ci wàlluk ab bilan ba bërki démb Ila Touba kenn umpale wu ko ak yeneen route yu mu def ci dëkk bi. waaye demande sociale bi diggante nit ak nit ñoo koy dox ci président mënu ko dox ak ñépp kon responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bu leen dooleelee dooleel gam leen di dooleel ñooy compléter demande sociale yooyu ci ñun waa Touba ñun waa département Mbacké manqué nañ ko lool ca bokk nañ ci onze département yi nga xam ne ñoo am ay 67000 voix tey sama xarit bas wax na ko léegi nii ñoom bi doon xaar vingt cinq vingt cinq pour cent ñu indi leen trente pour cent kon ñun bokk nañ ci ñi fal président Macky la nit nag munoo ne da ngay def politique ci bëggoo dara politique bi ñuy def am na luñ ciy wut loo xam ne nii pour mën a jàppale ñin àndal la mën a jàppale tamati dëkk bi mën a jàppale tamati population département Mbacké kon am na loo xam ne nii juróom-ñaari at ñu toog di ko muñ juróom-ñaari at ñu toog di ko liggéey ba tey jii ñu bokk ci onze département yoo xam ne doonte dañuy wax ne Touba am na ku fa ñëw am fa loo xam ne ci kaw ay communication yoo xam ne baaxul ay nit di ko def di ko mbuboo yoonu murit loolu bu mu amee mu am loola ñun ñu am liñ am teewul nag lako ini indi waxtu ne da cey am lo xamne ni president sama xarit nga bayi ñu xel bàyyi ñu xel bàyyi ñu xel parce que bàyyi gi xel moy lan gudi ak beccak ñi ngi lay liggeel gudi ak beccak ñi ngi daw ci nak la Matam bëgg Tiwaawan am ko fatik am ko lolu ay doomi aadama lan ci am bop am ay xel loolu lan bëgg fi danoo bëgg mo am ay ministre am ay directeur général ndax boo jëlee population Touba jël département bu Mbacké bu Dakar jàllee bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo fi ëpp ci wàllu population kon lan mooy nayu heure bu ne bu ñuy séddalee wala ñuy dagg wala ñuy wut di ko jëmale ci gox yi suñ gox bii ñu doon loo xam ne nii toujours dañ ñuy mel ne ku ñu fàtte ñun kat ay gor lan jàkkaarloog ñu bari di xeex guddi di xeex bëccëg ngir lan fassiyene and ak mom ci ngor rek waaye nag waxuñu di and ak mom ci ngor ba pare bëgguñu dara dañu bëgg dara ci xamna ni rew mi di doxé xamna ci yeen condition lañi ñuy am rew parce que yàgg nañ ak état kon lolu signal la bo xamni ni pour ñu mëna a dëkk bi ndax damay question mouride buñ ko wax ak question tariqa ndax nee naa la mboolem dëkk yi nga xam ne ay dëkk murid lan bu ma ko doon lim du jeex dëkk bu ci ne président Macky sàll gañe ko ko kon foofu question boobu nañ ko dàq kon nan bàyyi xel ne ay ndaw a ngi fi nekk yoo xam ne nii ay cadre lan ay ndaw a ngi fi nekk yoo xam ne nii wax nañ ko war na noo nekk ay chargé mission ay ndaw a ngi fi nekk ay nit a ngi fi nekk yoo xam ne nii tama tamit war na noo nekk ay ministre ak yeneen i poste ak yeneeni i kon loolu président ñu ngi la koy bàyyiloo xel xam ne du ma wax ne ndàngam gàtt na parce que ñun weesu nañ loolu loolu moom weesu nañ ko bu yàgg 67 voix ku ko am weesu ko foofu kon loolu laa ne woon faw tey ma ko faw ma waxit wax ne département bii di Mbacké ci Sénégal la bokk département bii di Mbacké ay nit yu fi nga fi nekk yu am engagement yu am gëm-gëm ci jàppale président Macky Sall ca man de gëm naa ne cër yéen leen war a jox suñ leen ko joxee ci dëkk bii gëm naa ne suñ demee ci ay élection dañ koy gagné au premier ak première heure ñu gagné ko incha allah rabbi